soow Mali soow Mali nu mu soow Mali soow Mali féete seen dajoor noonu moom Lamine l'an 2000 a ngemboo ngemb lu jaune li féete seen càmmuñ ay l'an 2000 moog soow Mali Lamine luy soow Mali man xaw ma ko Lamine eh soow Mali cokaas la soow <laughs> Mali na xanaa war naa forox Mali dama defoon ni kew rek la ak ay bali bali ak ay cuub man bëgguma lii man buur hee door nañ ko hee sow Mali la de la mais la 2000 dafa mel ni mi bëre moo gën a sûr <laughs> mu ngi le combat def tek respecter son adversaire la 2000 sow Mali ay waay soow ñar nañ ko ay waay zirig nañu soow mali zirig nañu soow ay waay soow mali soow bul géree géreelu soow mali ñar nañ ko xoola soow mali